sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. si si kanam sama place laa jëlaat si làmb te incha allah le huit. nga xam ne damay jëlaat sama place si làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man la làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane bopp dama jël combat bi pour moom dama jël combat pour daan ko combat bi maa ko gën a soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man damay seeti leneen su dëggalee boppam dañuy xeex dañuy bëre ma daan ko incha allahu rabbi dama xamul ne loo yem ma ba jël ma loolu dina dëggal boom rek papa mi ngi wax maa ko gën a su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allah te lamb ji dama deux minutes su dëggalee boppam ñu bëri man ak Fatma Dia Defiant maa ngi lay fay. Fatma Dia Defiant maa ngi lay fay. baal ma àq. baal naa la àq baal ma àq. yàlla boole ñu baal ñu fekkee ko ay déwén. déwén bu naree naqar yàlla mel ni ren. yàlla defal ñëpp jàmm may ñu ñun ñëpp jàmm. ñu nekk si loolu hôpital yi yàlla fëgg seen bopp ñu jug. ñu nekk si prison yi yàlla génnee leen. ñu am soxla yàlla fajal leen ko. ñu amul soxla yàlla ñaanal leen ñu bañ a amati soxla. Mathia tey ngeen di préparé sa xarit sa doomu ndey muy Papa Boy Djiné combat ak Nandi Fall ñu gis ne bi dafa jege woon tabaski bi mais ci côté préparation bi noonu ko préparé. waaw moom mis na mis na lii parce que defe naa lamb moom Sokh Balde nii la demee woon période bii la daaw heure bii lañ ko paree te ba mu ñëwee stade gis ngeen waajal na ko ni mu ko waajalee ren tamit noonu ñoo ko waajalandoo waajal na ko comme nu bi di waajee waaw lu si des mooy ñu dem yàlla may ñu ndam ndax xam ne ne bu simmeekoo dinañ xam ne indi na état na doole indi kon lu des mooy ndam te yàlla ko yor ñu ngi koy ñaan yàlla ko bis ba. ñu gis ni Papa Boy Djiné heure buy préparé combat day bari ay critique ndax ñu ngi naan Papa Boy Djiné combat bi bokk na ci combat yoo te ni mooy dernière chance mais loolu noo koy. mais nit ñi ñooy wax rek xam nga sénégalais yi moom ak seen xalaat parce que ñoom yoruñu esprit de sportif te nit da nga war a esprit sportif sport sport la di nga gis kuy xamante ne barki alxuraan ku muy ko mën fuuf te ñu bëree mu daan ko mais loolu affaire de sport mais foog ñu gëm ne nit ki yàlla mooy ñëw si moom bu yàlla ñëwagul si moom day xaar muñ Papa yàlla ñëwagul ci moom mais ñu ngi ñaan yàlla combat bi yàlla ñëw ci moom te bu ñëwee ci moom incha allah rabbi dinañ xam kuy Papa Boy Djiné. yee préparé xam ngeen ko. xam nañ ko bu baax Nandi Fall mu nekk champion nekk champion bu mag ñu suivre ko moo tax tey Papa war a ñëw ci moom pour wane boppam looloo tax Papa jël combat bi. ñu dégg ko mu ne bu ko attaqué dina ko weer loolu nan nga koy non Nandi Fall du weer kenn. lamb ji moom man moom bu doon sama analyse man rek man rek xam naa lu si neex yëpp Papa Boy Djiné koy def parce que moom lu koy yàqloo ay combat am sax mooy loolu gars yi dañ koy nax signature yi ay dëgg la sa bopp mu dëgg boppam indi xare ñu nax ko daan ko léegi yooyu moo moo fi jeex léegi am doole nekkaat beneen naa di faal waaw mais soxna tubaab papa moo xamante ne xale la ñoom maa sa nekk xale ndaw kon moom bu naan di faal amee doole def lu ne ci lamb papa lu mu a am combat bi moo ko ci war combat bi li def na ko bu jour ba incha allah doole rek ko mën a génnee ci làmb ji te entraîné na ko. bu ñu loolu ci yow lan nga nekk. waaw man maa ngi sama ruq rek comme d'habitude rek nekk sama yëf rek waaw. maa ngi sama Mathia Preira far yi coow li dafa bare ci moom gis nañ ne critique yu bari yu ñëw ci Mathia Preira loolu nan nga koy dundee. waaw mais loolu nice man moom yooyu saf ma man si banlieue laa juddoo man digg ñànkatan laa juddoo man boo juddoo ba tey cricket laay dégg man ragaluma man si digg bassin laa juddoo àll ngéwël man aw ma man dara dawul sama yaram man looloo tax dégguma sax loolu non non. dañuy dégg ñu bari na Mathia dafa dugg géejawaay na Lac de Guiers 2 di leader am Balla Gaye di leader am mais ñu gisee Mathia Pereira day sànni ñooñu xeer lan moo tax loolu dégg dégg yooyu yaa ngi dégg. loolu ay waxu naa fekk la rek naa fekk moom waxam du rafet day wax rek pour jaxase wala pour wax mais waxu Mathia Pereira ku jàpp ne Lac de la wala Balla Gaye la da nga nekk naa fekk rek mais Mathia lu mu wax engagé na képp ku demoon si réunion engagé na la. mais soo bëggee jël wax ji def ko si Balla Gaye wala ci Lac de Guiers 2 da nga nekk sax naa fekk bokk bëgg a jaxase géejawaay moo tax nga jëlee décision boobu kooku aw ma sa tontu parce que naa fekk mënu ma tontu moom waaw dafa am ay menaces yu mu jot parce que ñi ngi ñi ngi faj nga ay source que ni Mathia dafa am ay menaces yu mu jot biir géejawaay Mathia mënul jot menace géejawaay parce que Mathia géejawaay mënu ma fay am sens interdit fu ma neex laay dem nit gënumaa réew géejawaay nit amul nit bu ma musa woo ne ma Mathia nii wala naa barki laa ilaaha illallah te amuñu sax fitam woo ma pour menacer ma pour lan. non dañoo dégg Papa Boy Djiné def benn sortie ne Mathieu Pereira ku ko laal ne muy mbëru Guédiawaye muy ñëpp ku ko laal laal ma. waaw mais dafa nekk suma xarit xam nga ñu def benn sortie polémique bu bëri sortie bi xam naa fa la waxee gis na ni polémique bi bëri na mu génn def sortie wala na moom tey man su ma deewee moom day dee tey pare na pour xam nga pour loolu la rek parce que lu ñu àndee la quoi ñoo xamante ne bañ nekkee xale ba léegi lu dul làmb xam nga bu déggee tey ji benn kii bi bu ko neexee day parce que dafa am lu ko métti. ñu gis ne Ada Fass dafa génn ñu gis ni polémique bi bari ñu ne Ada Fass dégg nañ Bougane Gueye Dany def benn sortie ne Ada Fass lan moo tax muy génn ñu dem ba naan di critiquer loo xamante ne di wax ay wax yoo xamante ni que ni ñooñu la ñuy gracier bàyyi ñoom ñoo nekk ci biir te en tant que mbër loolu nan nga ko déggee. waaw loolu man rafetlu wu ko parce que Ada Fass Ada Fass deux ans lañ un an lañ ko tëj ak un an kii pour ñu bàyyi ko nit tëj nañ la deux ans nga tëdd si kaso un mois ñu lijjanti la nga génn loolu du Ada moo ko fi njëkkee te moo ko fi mujjee c'est ñu xamul pen nag xamuñu kaso xamuñu justice bu leen neexee ñuy wax mais nit tëj nañ la deux ans procédure bi tëj la juge bi tëj rek la mën bu tëjee day bàyyi procédure bi yow mboqam yi ngeen topp ko boo la ko toppee juge mayaat na la ñu bàyyi la wala ñu wàññil la wala ñu condamné la deux ans yooyu juge may na la loolu ñoom instant dañuy toon justice lu ñuy def justice dañ joxul cëram parce que justice gënuñu koo xam liggéeyam mënul def lu muy def ba pare ay nit génn naan ay justice Sénégal lan la justice Sénégal lan la Ada Fass c'est normal parce que ñun ñii xam nañ loolu nit boo ko tëyee un an juge bi moo la tëj mais am nga procédure booy topp boo ko toppee un an yooyu mën nañ la baal bari am nañ yaakaar ñu bari dañ naan am nañ yaakaar ba tey am nañ yaakaar que làmb ji tijji ndax am na yeneen combat yu yi nga xam te ne moom moo ram papa boo jine mi si la war a bëri mais tey noo déggee noo déggee lool gars yi naan amuñ gu ñu yaakaar que ni combat yi dina waaw mais dañuy sabablu rek dañuy sabablu rek ñu parce que gars yi làmb ji lay am comme ni ko doon waxee rek mais le fait que ñu bàyyi activité yëpp di doxoon des waaw mais loolu am loolu rafetul Sénégal moo dañu war a làmb respecté wuñu mooy li ma doon wax rek mooy làmb ñun intérêt rek lañ ñu jàppee bu intérêt ñëwee dañ ñuy exploité bu ñu nekkee suñu problème nag kenn mënu koo lijjanti léegi lii ko mën a lijjanti football am na barki dem stade Pikine ah jaraaf Pikine ah léegi làmb ngi nii kale léegi kan ban autorité moo jug pour lijjanti làmb ñu ngi nii booy promoteur jox nañ seen avance booy yaa ngi nii di ëppan de presse te wóorul ñu bëre léegi ana ban politicien moo ñëw pour jàppale li kan moo ñëw rek pour dooleel li te ñu ngi nii côté lamb ji yeneen sport yaa ngi dem maanaam lamb lañ respecté wul Sénégal joxuñu suñ cër joxuñu lu ñu moom ba pare ñu ñu war a jox cër ñu ñu war a utili cër joxuñu leen cër fan la ñuy amee cër. ñu ñu war a utili cër joxuñu leen cër joxuñu leen cër. c'est que mooy mbëri mag. waaw gouvernement bi joxuñu leen cër te ñoo ñu war a utili cër. kon ñoom dañoo waroon génn ñoom it. waaw te defuñu ko ñu ngi nii kale nañ te lamb ngi nii nekk si problème. dañ waxante dëgg dëgg nañ koy dëgg dañ wax quoi lamb lu wax ñu ñëpp xam nañ ko nañ ko waxta dee xam ñun ñëpp xam nañ ko xam nga ko xam naa ko ñëpp xam nañ ko kàllaam lu ko kaleel xam nañ ko intérêt bi la ñuy jël teg ko ne le ah nañ ko waxta dee waaw Fall production Djiby nuyul ma jiili waaye ñu demee gerte gi moo gis. gis naa ne pare na. ah état de fond bi gis naa doy na waar. lamb capital lay bëree. ndeysaan te jeexal la. Gounass. la facette de Gounass toog. laa ilaaha illallah Sami Baxtaan. waaw waaw. ndeysaan. oh. ndeysaan. ma ngay ne ma ngay di yow li nga xamante ne ma. maa ngi dégg wala. ma ngay dégg wala ba. waaw waaw. Jool production dellu si na le 16 juillet 2023 ci arène nationale muy première édition drapeau Abdoulaye Djigo di dox ci diggante Giro Seras ak Abou Ndiassé diggante parcelle ak jàmba gën combat bi nga xam ne moom la amateur yi di xaar combat spécial Karbala ak Fëgala bu Ngor première édition drapeau Wan Sow responsable politique ci Parcelles Assainies bébé rëg-rëg ak caatu Jolof drapeau Ifra borom Al Amin service Ouskara ak vite fait drapeau Moussa di responsable politique gëm sa bopp de l' association des responsables écurie de Sénégal di yóbba diggante Momo ak Ndeye Fatou Adama Diali ñu fas yéene wàcce stade bu dee supporter 2000 francs amateur 5000 francs bu dee loge officielle 10 000 francs diggante Giro Seras ak Abou Ndiassé lii ku ko tardé tardé lu rëy